waaw dañu ñëw and euh, ak aussi wa mo ñu jappalé jox ñu dolel ñu jox ñu ben projet bo xamni projet national la dañuy dem après ci région yi mais tay nak dañ koy lancer fi rek projet bobu nak dañu ni nañu bok ben kàddu goor ak jigen pour xamal nit ñi ni suñu yellef dañ ko war euh, respecter ci pandémie bi xam nga fièvre bi bi mu ñëwé ñu naan ka mbass mi wax dëgg yàlla daf ci am beaucoup de rëq-rëq gis nañ ci ay métital yu ñu métital xale yu ñu métital jigéen ñu ni violence yi dafa yokk ñu ni jigéen ñi nga xam ni surtout sur le plan économique euh, dañu nekkoon ci secteur informel di liggéey te loolu moo doon seen jumtukaay ñuy jàppale seen njaboot am na temps mënatuñu woon dem mënatuñu dikk même bi nga xamee levé nañu mesures yi léegi sax gis nga commerce bi ni mu ralentir donc ñuy lancer autorités sur le plan économique ñu xajal ci jigéen ñi pour ñu mën reprendre seen activité parce que ku nekk xam na ni jigéen moo war kër moo yor kër mais xalé yi tamit xam nga école yi dañ leen tëjoon xalé yi ñu woon temps yi sax amna gox yo xamni dañu wañi heure de cours yi mais ah ñuy interpeller aussi ñi nga xamni ni ñoo amee mbirim jàngale mi naam ñi ngi gor góorgóorlu ñu gën gor góorgóorlu ci xalé yi. li ñu ci xaar nak moy wax ak euh, kilifa yi kilifa yi fi nek nga xamni ni ñoo ŋànk nguur gi fi ci localité bi kilifa diine yi kilifa aada yi pour ñu gën a wax ak nit ñi ñaax leen ni jigéen dafa am àq ak yelleefam donc àq ak yelleefam même boobu loolu su feebar amee sax dañu ko war saytu jàppale leen ba àq ak yelleef boobu ñu jot ci waxtaan ak nit ñi tamit sensibiliser leen ni leen naam feebar baa ngi fi wàññeeku na sax mais na nit ñi gën a góorlu pour ñu mën a gën a aar bépp doomu Sénégal boo xam ne surtout rawatina gox bii nga ne bépp doomu Sénégal boo xam ne yaa ngi yëngu ah di indi sa doole ci affaire mbas mi pour mbas mi gën a dellu bu baax ba jóge fi